waaw mbokk internet ñu ngi leen bu baax a baax di leen jaar fii wasaare. waaw troisième combat de la soirée journée Baol Production Giro. TNT ak Giro. TNT soo xoolee TNT moo ngi moo ngi lu ñuul li. Rëbës Rio ngi Waxinaan. Pikine Waxinaan la nekk. mais Seck waaw Seck Assane dama ne ma tey la ay ndaanaan de. waaw tey combat la combat bu am sens. arbitre sifflé na waaw. diggante Tente Giro ante ak giro ñaari xale yaa ngi noonu si digg géew gi tente ak giro kan jure bool production ay da leen wax ne diggante Mbaye Diouf ak Youssou Ndour ay waay waaw boobu la gars yi wax l'expérience face à la jeunesse waaye Toubacouta malam ñaani o combat amateur la combat délégateur la combat boobu est-ce que tan muy xeex ñoom ñaar combat boobu Rio combat boobu mën a door la waaye mën nañ ko def lit simple simple la Rio attiyante giro tente giro attiyante san giro san tente ar giro giro attiyante tente dorna giro replié san tente ar giro ñaari xale yaa ngi noonu ci géew bi giro attiyante giro attiyante san ñaari xale yaa ngi noonu combat yi fi jaar yëpp a gaaw ndeysaan bi mooy troisième combat de saan TNT TNT Guiro ak Guiro TNT ak Guiro saan ñaari xale yaa ngi noonu ci digg géew gi TNT ak Guiro TNT ak Guiro Dente Argiro Dente Argiro Dente Argiro Dente Argiro Ndeysaan ndeysaan Kanté Guido mépp na waaye demul mépp na waaye demul Guido teel na Guido wat eh door na na Guido fayu Pikine waa Xenaan la nekk waaw waaye combat yi fi jaar yëpp a gaaw ndeysaan waaw troisième combat de la soirée ñoom ñu bëgg ñu fee fanaan loo ndeysaan ñoom ñaar dañ ñëw bëgg a naxante ah dañ bëre jóge fi waay waa seen koom yi ah bu leen ñu guddeel Guiro ak Tente Guiro ak Tente antente yoo antente avant Fra song na ko jël na ko mu bañ da ngaa jóg mu tëru ko da ngaa song mu tëru ko da ngaa song taa nii def placement de bras ñu bëre si loxo lutte au sol fi ñu toll lutte au sol lañ def bëre ba amul jàpp ngeen lañ def fi ñu toll ñoom ñaar wante nañ wante nañ ñoom ñaar wante nañ ñoom ñaar lit au sol la ñuy def fi mu toll nii ñoom ñaar lit au sol la ñuy def saan yoo tente yoo tente yoo tente ñaari xale yaa ngi noonu woon ma Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye Mouride Lamba Ndiaye. di waa TNT. nekk combat espoir. mooy dañ la. allo. allo. Saan di woo Tente di woo Tente songu na ko songu na ko am na ni Tente daan na ko. Tente Cheikh Diaw a ngi doonu. Tente daan na ko am na lu muy wax Cheikh Diaw kot so. waaw Tente daan na ko. Cheikh Diaw mooy kot su Tente. waaw mooy kot su Tente kii la bës daan na ko daan na ko. daan na ko daan na ko daan na ko.